شاب صالح وقت وقت ونرك آه، تاون في من حال في من نودك لكم من قاتل آه، من ما وقت ما آه، سمبرامين خانم دف coobareem mu def li mu def ci sëriñ bi sëriñ bi moom doomam yépp ñu tudd di ko tudd ñépp kenn ku ci ne karaama la karaama karaama karaama boppam la ci sëriñ bi mm-hmm. kenn la ku neexu la melal ku doy war la waaye li ci gàttal rek nitu yàlla la ni mu ko bokkee ñi mu ko bokkalit taalibe Sëriñ Tuubaa la muy ku jeex takk ci Sëriñ Tuubaa ci la la Sëriñ lay lay Sëriñ Tuubaa ci wàll yépp ni ma déggee Cheikh Salif mu ko wax sama lam sant naa yàlla ci moom bu baax a baax a baax ku doy waar la nit ku baax wuyu turam lool saalex mooy ku baax mooy lu baax mu wuyu turam ba mu jeex takk baatam boobu sax am na bayit yu ma ci defoon waaye xam naa ko fàtte te it mi ngi ci biir kay bu neex daal te te seet waaye defoon naa ci moom ay bayit yu fa tabarakallahu euh, junj ci la ma xam ci moom waaye rek gàttal bi rek mooy loolu ku yu ku wuyutalam baax ci àll yépp baax gi ñu soxla fii baax gi ñu soxla ëllëg lépp la boole jëfe ko nag ba mu jeex takk ci pas-pasam gu rëy ba ci yitteem ju rëy ja ci bëgg lu baax nga ci kersam gu matale ga ci dëddoom gu rëy nag nga xam ne moom lañ koy ràññee incha allah dëddu lañ ko mën ràññee te adduna bala nga tey mën a mucc dëgg da koy dëddu moom nag daf ko dëddu ba mu jógee ba fi ñu ko noppee gis ku dëddu adduna la ku jublu boromam la eh, sëriñ tubaa yëngu ci sëriñ tubaa mooy la ko neex sëñ Tuubaa moo ko mooy la ko saf doxinu sëñ Tuubaa mooy la ko saf moom la dund danañ ko noppee gis danañ wàccee maa wax ci moom <laughs> waaye maa ngi fi maa ngi ñëw sax mm-hmm. euh, nekk ku sëriñ Saliou nekk nitu yàlla waxee la nu baatunu bitig biti loolu euh, diggam ak Cheikh Abdallah Fam mi màndarga ci ndax moom yax naa ko xam nekk na feeg sëñ Saliou fukki fukki at ak juróom yaxasoo moom ci biir sëñ Saliou def ko wéttalam loolu man booba xaw ma ko sax nekk jiir bi ñu nekk lépp xaw ma gannaaw bu sëñ bu sax Saliou demee la la dem yàlla def deux mille la kan dinañuy waxtu dahabtu ila Paris بعد أن غادر الشيخ نعم نعم ذهبت في 2010 أنت 2010 2010 من هنا إلى إلى باريس 2010 في في في في اي عام تعاقدنا ci atum 2012 bi ñu yàlla dafa dogaloon ma doon lémtu yaram wi ci rendez-vous fa joxoon bi ma demee Paris am fay fan moom mi dégg ma daal di may seet si keroog bi ma seetsee rek lanu yàlla boole dafa wax ne li mu dund li mu li mu li mu dund sëñ lépp gis na ko si man wax na it day daal di def jaayanteem sama diggante moom ci yoon ci yoon bi gannaaw sëñ gannaaw sëñ Saliou boobu la yàlla boole waaye li ma wax ne màndarga la ci eh, nekk gu seex saara saara nekk nitu yàlla dëgg moom mi màndarga moom dafa am tawfiq yàllaa ko taw yàlla mooy tawfiq ndax yàlla dimbali na ko ba gëstu na diine ba am ci lu wér yàlla boole ko sëriñ tubaa mu bëgg sa sëriñ tubaa faf ñu wommat ko bëj teg ko ci loxo sa saale lam bëggoon doon ko gëstu lépp ci diine ci sëriñ tubaa lépp yàlla woon ko ci sëriñ Tuubaa Saadu moom nekk moom ba ni mu ko noppee gis mu jaaxle gërëm dem moom Tunis la waaw Tunis la ñi si gën a kiimaane euh, Tunis réew mu baax la fatuwax la réew mu lislaam la ay am nañu ndog ndax bi euh, fii colonialisme bi duggee ci France ñi colonialisme baaxoo la mu fekk ci réew mi lépp ba koy bëgg a soppi def ko muy doxinu boppam meloo boppam loolu nag Tunis dañ ci am nattu dañ ci am dogu daanaka daanaka ay tubaab la jig dëgg la naam ba tey jullit la waaye nag tubaab doxinu tubaab doxinu tubaab la ko moom mu soqi koo ci ñëw yàlla loolu karaama sëriñ bi rek la yàlla wan ko sëriñ Tuubaa ci loo xam ne kenn xamul suñu borom mi nga xam ne moom nu mu ko neex rek moom moom tëlewul dara nam ma def rek def ko loolu moo ko wommat ba mu agsi ba dugal ko ci loxo sëriñ Cheikh Saliou la mu doon yëg la mu doon wut la mu doon gëstu la mu bëggoon lépp ci nitu yàlla mu fekk ko ci Seex Saaliw Seex Saaliw nekk moom nag loolu moom gerte gi doon bi ma demee demee dus noonu mu dégg ma ñëw fa ma gisee rek ma nit foofa laa daal di amee yëqin ci moom moom it mu wax ne tax lépp jaaxle gépp jeex na ndax du ma gis daf mel ni dafa gis seen sàll. loolu moo ñu boole loolu nag doy na mand doy na mandarga ci seen sàll man mun mu cee wax waaye loolu doy na mandarga ci sañ sëñ Saliou moom kenn ci karaamaati sëñ Tuubaa la waaye eh, eh, feeñ ci moom jëm ci sëñ Tuubaa loolu it karaamaam la moom loolu loolu rek la. moo tax nag sax maa ngi doon am ay xalaat maa ngi am ay xalaat ci moom ndax ginnaaw alhamdulilah rabbil euh, ñi nga xam ne ñooy intellectuels yi moom tubaab la ñuy jàng français la ñuy jàng te ay taalibe ngi si yoo xam ne boo sañoon ñu gën a xam Sëriñ Tuubaa loolu moo tax boo sañoon euh, maa ngi doon xalaat sax mu defal ko mu def benn mu xaar benn conférence maanaam boo sañoon sax réew ñëpp la koy de wax pour nit jamono yu ne. moo sañ loolu itam day génn réew mi taalibe yi yi nekk ci bitim réew muy dem ci ñoom ndax noonu ñooñu foofu ñooñu itam fekk ba tey eh, fa tabarakallah ay intellectuel ñoo xam ne ñoom eh, dana mën a wax ak ñoom ci sëriñ bi te ñoom duñ ma dëgg la eh, tawfeex juree la ñu am ci bëgg sëriñ bi ba jeex tàkk waaye nag sëriñ bi loo ko gën a xam gën ko bëgg te moom mën na leen dolli ci sëriñ bi moom mooy Abdallah Fall ak yéene ju ci kaw loolu yàlla ubbil nu ci buntu ba mën a jot ci taalibe yi rawatina intellectuel yi mu nga xam ne ñoo jàng dañu mën a xam-xam lañu ba mën a waxtaan ak ñoom ñu gën a mën a dolli bu sëriñ bi loolu loolu maa ngi koy xalaat maa koy yéene wax joxe naa sax baat ba noppi sax seen Ndakaaru bëgg moom mu def foo conférence tàmbali ko dafa mel ni télévision bi ñu ngi am yéene ci dalal ko. conférence bu waxtaan bu yaatu woo xam ne. day daj àdduna bi ñu lëkkale ko. loolu bokk na ci samay mébét. bokk na ci li ma gën a li ma gën a ma gënal. ndax li ma bëgg rek moo di taalib yi gën a gën a xam sëñ bi gën a dolli ko sëñ bi te moom alhamdulilah rabbil alamin am na tawfeex yu nit di am na ci sëñ Tuubaa am na ko ba noppi am na xam-xam. gëstu na diine ba xam diine mooy lan xamee na it li li ñi ñi dafa bari ay ay ay ay xeeti passif bokkul dafa bari lool waaye nag passif bi ci gën a wér mooy benn mënu ci gën a wér passif Sëriñ Tuubaa dama bëgg dama maan war a maan yem foofu rek waaye amul benn passif biñ noppee gis sangu bi néefe سيدنا محمد من كنا بيجس بلاجي كم نكو خم نكويري ني بسي في نسرين توال أمود ممنك يلا جيم نكو جي خم من بسي في يلا توفي خم نكو هذا كو توفي جي بسي في نسرين توال لول نك مم لا مبتون جناو مم أنت تلي جان خلين جان فرنسي تي دي برا مخم كمان نمهم ولا منا gëna xamal sëriñ bi mo leen ci mëna gëna dolli ci lolu moo tax lolu kon lolu lolu télévision ñu bëgg a def defaluñ ko kenn man lañ ko def man ne defaluñ ma dara sëñ Tuubaa rek lañ ko def alhamdulilah xam sant ginnaaw boo yëkkatee ay kàddu ci ñaan yi ñu fas yéene ñu defal ko ci gaaw bi rek soññi ci ci daara alxuraan waaw waaw waaw sax Saalum moom wax dëgg yàlla fa tabarakallah sax Saalum moom wax dëgg yàlla fa tabarakallah ñi xalaat loolu def nañ lu baax def nañ jëf def nañ jëf jëf jëf def nañ lu baax loo xam ne dañ ko defal ak bëggam te te itam te itam waaw loolu tax mooy li gën a mooy mooy li gën a gàtt dañ ko defar ak bëggam ndax ci loolu loolu lu ko lu mu fonkoon la jàngal xuraan jàng xasida xasida moom kenn mënu ko gën a bëgg aada woon na ko defe naa jàng yëkkati moom xëy na man ne ne moo ci jiitu woon eh, taxul ma xam ci lu ko soxla naa ne moo jiitu woon ci yëkkati ci eh, jàng xasida nii ñu koy jànge eh, loolu yaakaar naa ne kenn ëpp ëpp ca yitte Cheikh Saliou nga xam moom da ko boo da ko jiitaloon ci yitteem jàng xasida nii ay daanaka dong yi da ko ñetti xaaj laa doon xaaj bu ndaw topp xaaj bu mag bi dañ daa boole seen seen jàng seen jàng xasida loolu loolu itteem moo ko indi moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko euh, doyal jàngal ko ci mbooloo mi musu ko doyal waxtu wu ne ci la nekkoon waxtu wu ne ñu koy santaane di di ko woote di ko santaane alxu jàng alxuraan ngir wattu ko itam daara daara daara loolu kenn mënu ko ci ëppite ndax ci loolu nekkoon ñi war a jàng xam ngi jàng ñi war a jàng xam-xam xam seen diine ñi ngi jàng loolu du ko lépp du ko dugaloon ci biir daaray tërbiye ji wala ko daara bi tërbiye ji xam ne daara tërbiye moom ni mu ni mu ko bëgg ba mu ci accès eh, ku ku jaar ci daara tërbiye am fekk na nga nopp ci alxuraan wala fekk na itam nga nopp ci xam-xamu diine ba mën faa nekk di di di di jàngale di dollandiku ci taalo bi ndax sëñ Saliou moom moom seexu seexu tarbiya dëgg la moom woon jikkoom moom seexu tarbiya jikkoom moom loolu moom moom seexu tarbiya jikkoom waxuma ne sax li jël ci sëñ Tuubaa waaye moom jikkoom dañ jikko yi seexu tarbiya loolu ci la nekkoon ku ko xam ci loolu moo xam sëñ Saliou moom neexutu waxtaan <laughs> waaw kon nag ñii eh, xalaat yooyu am ñu am bëgg koo fàttaliku du ko ñuy fàtt sax waaye ñu bëgg ko di ko gën koo yeesal bëgg-bëggam ngoogu di jàng alxuraan jàng loolu lu ci waay man rek kem kattanam muy mbooloo mu dul mbooloo lu ci waay moom kem kattanam rek na ca na na bu dee mbooloo na ca def itte bu ma sëkk soñ ca ñëpp waaw bu dul mbooloo yi na ca nekk di ko di ko di ko di ko xamal ko xamal benn benn bi jàng xasida mooy suñu xaas mooy xaas kon wax nañ ci góorgóorlu bu baax man nag after alhamdulilah rabbil am naa ci taw fe ndax sëñ Saaliw ci mujj gi ah, dafa naa koy jàngal nuuru daarayni eh, ma dégg ji jàll def na si bi yëpp ma ko def bis bu def dara ma ma ko bi ma ko noppee gis maa ngi ci waxtu ne maa ngi yeesal ndigal loola eh, di ko def ajjuma ju ne jàngal ko loolu daañu wax sax yoon nekku ci moom moom ko digaloon moom moom jëfe moom jëfe ndigal loolee kon nag loolu moom gannaaw bu loolu lépp wéyee nag sëñ Saliou doy na soññ ci lépp doy na soññ ci lislaam doy na soññ ci sëriñ bi doy na soññ ci taalu doy na soññ ci xam-xam nañ su ko lim mënuma ci wax daal. <laughs>